Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. E eh, yini fatali ci digante ku tedd ah, ki ak Cheikh Ibrahim Fati borom mu Muhti ci eh dañu wax ni borom mu Muhti ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa waxon ceer ko sama mbot ci yow la ko denc mbot nak moy lu neub mooy assir sir mooy secret mooy albatin mooy albatin mooy lu nekk ci biir lu nëbb rek gis ngeen arab albatn ji muy wax biir ndax li nekk ci biir albatn maanaam vent la vent vente waaw tudd albatn ci arab ndax la nekk ci biir lu nekk ci biir moo tax mu doon ndax yi nekk ci biir yëpp dafa nëbb borom daaru ñu wax ni ku tedd ki bi muy nu mu ko njëkkee taxawuloo fere yi di leen liggéeyloo ci Touba ca gor ba daal booba tàmbalee gu ñu fa dara lu dul setal dagg ay garab am setal daal ak defi kii maanaam ay làkk wala yu demee noonu wax nañ ni taalib yi fa doon liggéey borom daaru jiite leen dañ fa am ñetti fan yoo xam ne lekk ñu naanuñu te teewul ñu ngi liggéey te kenn daanuwul feebar kenn xamul wax nañ ni borom daaru moo te ñëw ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ni ko kat ñii ay nit lañu te ñetti fan a ngi lekk ñu naanuñu ku tedd ki na ko noonu naa moos malaaka yi fii liggéey mu ne ko da leen a jaawale ak malaaka yi loolu leer na maanaam kon dañuy wane ni ku tedd ki bu ko neexoon malaayika yi ñëw yor ay jëmmi nit di ko liggéeyal <laughs> bu ko neexoon <laughs> ndax wax nañ ni wax ci mbiri jumaa ji waxoon na lu demee noonu waaw nit dafa bëggal nit ñi saadatu daaree ni texeg tey ak ëllëg waaye fi ñu nii bu ko sooboon malaayika yi liggéeyal ko jumaa ji loolu <laughs> loolu nettil nañ ba tax na li tax may fàttali yooyu di ko nettali mooy contexte bii ñu nekk nii tey ci wàllu li ñuy tuddee baatin ma bëgg ci leeral tuuti rek baatin dafa am borom ku tedd ki moo ko moom baatinam nag du caagee ne kum fi teg nga doon ab xalifaam wala nga doon doomam wala lenn lam la cee jox mën na la ko jox ba noppi waaye du la jox sañ-sañ ba ah Serigne Fallou de ku na xam na ni sañ-sañ ba moom mi ngi woon ci moom radiyallahu anhu waaye nag du ñëpp daan feeñal baatin ci ñoom Serigne Modou Moustapha dañ daan wax ni xel ma wecc nag wilaaya daawul laal baatin fenn maam Thierno Ibrahim daawul jige baatin fenn daawul laal fenn teewul nag baatin baa ngi fi waaye mi ngi mel ni ay bali fetal rek fetal ak i bali fetal bali fetal bu baree man nga cay fetal lu la neex te du jeex bu bariwul boo fetalee bu jeex wala yu demee noonu waaye li nu bëgg leeral rek mooy nit ñi setantal tey fàttaliku ku tedd ki ni nekkee woon ak nasaraan yi ba noppi amoon baatinam amoon sañ te taxul mu jëfandikoo ko alayhi salaatu wasalaam yonent bi suñu borom moo ko joxoon ndigal moom ngir mu jàmmaarloo ak ñi ko wedd woon yéefare ndax dañu ni woon lislaam du fa taxaw waaye gis na ni lislaam mujj na taxaw ba <laughs> waaw ñu nekk ci yeneen i diine it ñu ngi ci seen i diine waaw ku nekk di toléré sa morom fii nu toll nii fii jamono toll bu fekkoon teen ni ku tedd ki ñim fi bàyyi ak baatin bi mu leen di bàyyee dañoo am sañ-sañu di ko jëfandikoo bu fekkoon teen ni loolu am na kon ñu koy jëfandikoo kon ñu koy jëfandikoo waaye ak taalu bi da leen di gën a ñor ak it ñuy bàyyi xel ci ku tedd ki bi mu nekk tubaab yi te daawul jëfandikoo baatin ci seen kanam waaw yàlla nag bu yebalee waa ahlu badrin ñuy doxal ñu leen di tiital mbaa ñuy doxal ak ñoom lañuy ñuy doxal ak ñoom loolu moom <laughs> suñu borom la waaye ku tedd ki moom maanaam baatina boppam ak puissance boppam ak pouvoir am wanu leen ko woon moom dafa nekkoon ci li war a nekk rek lañu ko doon def yëpp itam mu koy muñ mu ko daan muñ waaw dañ ko daan def yëpp mu ko daan muñ waaw gis nañ fi mu toll jamono bii lu nekk di xew Touba waxuma waxi inondation yi rek waaw ñu ngi fay dégg yeneen yeneen yu dul noonu loolu li tax mu fay am mooy li ñu nekk ci mujjug jamono ba noppi nit ku nekk ku fa dëkk ku nekk am lu la fa war am fa part de responsabilité waaw fay ñëw ku nekk diir ba nga fay def am lu la fa fa part de responsabilité bu fekkoon te ku fay ñëw ku nekk bu fekkoon te ne ñi ngi référé waaw bu fekkoonte ni ñu ngi tegtaloo ci waxi ku tedd ki ni mu waxee ci Matlabul Fawzayni nañ fa war a dëkkee ak nañ fa war a nekkee ak ku fay ñëw na nga fa war a ñëwee bu fekkoonte ni loolu am na kon yi fay xew du xew <laughs> yi fay xew du xew léegi nag kilifa gi Serigne Mountakha du càggee na danaan du càggee na maanaam lenn képp lay man mooy la ñu ko fi jiitu daan def di digle ko tere loolu la ko fi ku tedd ki bàyyi waaye du jóge ku tànkam nag donte sax daf ko dañ ko jox cawarteeg buñ ko joxoon cawarteeg ndawul ndawul ñaar fukki at ndaw lu am ñaar fukki at waxambaane wu ñaar fukki at it du tax du tax fu nekk mu fay dugg yoru yatam <laughs> du tax mu def ko ah, ndax ña ko jiitu woon daw ñu def wax na nag doom la yor kàddu kilifaam bu wax jotee digle la jotee mu digle la bu tere jotee mu tere waaw lam fay bëgg ca dëkk ba te borom di ko fa bëgg mu koy fàttali nit ñi waaw waaye loolu yëpp bu ngeen gisee itam mais bu koy def itam ci yërmande la koy teg waaw ndax li ko tedd ki doon yërmande yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon kay ñi ko dëkkee ñi dëkkee dëkk ba kenn ku ne sa kër quartier bu nekk chef de quartier ba waaw foofu la liggéey bi nekk chef de village bi chef de quartier bi nan lay saytoo quartier bi nan lay wutee ay équipe yoo xamante ne bii ñoo koy saytul quartier bi loolu ko bu ko ñëpp rek quartier bu rek chef de quartier chef de quartier bu nekk na wut équipe am hmm? boo xam ne ñaar fukki nit ak ñett lay doon wala fukk wala fukk wala fukk ak hmm? ñu lay saytul quartier bi war na système de kii rek système de d'organisation avec un programme précis et significatif loolu képp la organisation kilifa gi li ko war mu ngi ci mu ngi wax li mu war a wax mu ngi digle li mu war a digle di tere li mu war a tere waaw kon ñi nga xamante ni bi dañu leen a élire daal def leen ay jóoriñ waaw waaw def leen ay jëwriñ dëgg la ñu fa nekk ñëpp jàmbaar lañ daayira yi jàmbaar la yépp yëpp waaye daayira yi lu ñu jàmbaar jàmbaar ak lu ñu am am am yéene ak détermination itam ñu bu ñu la xasee ni chef de quartier nga rek léegi nag yow it am nga rôle boo war a jouer boo xamante ni bi war nga am benn programme boo xamante ni bii programme quotidien lay doon yooyu daal defe naa ni moom la war a bàyyi xel dañ ñoo war a bàyyi xel xam ngeen ni eh, bu fekkonte ni sëñ bi day jëfandikoo baatin ndox ma <laughs> ndox ndox mu ndox mu fa taa ndox mu fa taa bu fekkonte ni day jëfandikoo bàttin bu waxee suuf si na na naan ndox mi suuf sa naan ko waaye nag dañuy bëgg <laughs> la ko tedd ki ne mënoon na woo malayka yi ñu liggéeyal ko jumaa ji waaw nit ñi ci seen bopp la ko tedd ki bëgg ñu jariñu rawante naa ñu fay dëkk kon la fa war rek waaw ñu fay dëkk la war daal mu ko defee bon nañu ni am na ku ko tedd ki sa di tàngalloo satal ndox fekk mu yor benn xasiida rek fi mu toll woon mu jaarale ci satala gi rek mu baax satala gi baax mu ne ko waxew ma ko noonu diglewuma diglewuma euh, ko noonu nga xam ni kon Batin baa ngi fi waaye day bëgg maanaam li nit ñi def ñu def <laughs> li nit ñi def li nga xam ne la xel nangu <laughs> ñu koy def loolu yooyu lu leer la waaw baatin bi mi ngi fi base la boo xamante ne bii nekk ci xalifa ba waaw nekk ci xalifa ba waaw bu ko defee nag waaye du càggi ne yi fi jàmbur la yu mu ko dénk xanaa kenn du ko ne di ko génne tey par la force wala di nga ci def li loolu <laughs> dëkk ba ab dëkk la nit ñi fa dëkk ay nit lañu waaw yu fa dëkk ña fay ñëw ay soppe lañu sopp boroom dëkk ba sopp dëkk ba sopp xalifa bi di fa ñëw ak dem waaye kenn ku ne na joué rôle ku ne bu defee li ko war rek waaw dëkk ba moom moom wax dëgg yàlla la fa borom wax lépp ci Matlabul Fawzayni day daal di am waaye bu borom waxee lii mu wax ba noppi nag. Hmm? te lii mu wax ni nu war a mel melunu ni waxunu li nu war a wax defunu li nu war a def melunu ni nu war a mel kon léegi nag nan lay dëkk bi mele ni borom bëgg <laughs> hmm? mel na ni ci bàttin moom waaw ku tedd ki defar na xol yi yàlla jox na ko jàmm ñëpp di ko dund ñëpp bëgg ko am ñoo xamante ni bii egg nañ ci wóolu ko wóolu goo xamante ni bii wuti wuñ ci yàlla dara ci moom la ñuy yem ci li ko yàlla jox doy na leen waaw sama kelas nga xamni ci mom lañuy yam liko yalla jox doyna na waaw ñu wolu ko doylo ko waye nag mu jangal nu ñetti murid yam murid ak murid sadiq ak murid sadiq wa nabi neena murid sadiq wa nabi lay won yoon mm-hmm. waaw kon ko xamanteni bi bi li nga xamanteni bi mom lañuy tudde reuy ak sis ak kanyan yu deme non mu teggil ko murid sadiq yeb ben murid sadiq bo xamanteni bi ben murid sadiq wa nabi waaw waa murit kese murit képp nag doyul murit képp doyul boo boo doonee murit képp hmm? mën ngaa bañ a mucc ci kañaan mën ngaa bañ a mucc ci jëw mën ngaa bañ a mucc ci fen wax lu dul noonu waaw lépp loo xamante ni bii daal lépp loo xamante ni bii daal suñu borom da koy tere boo dee murit kese man nga caa bañ a mucc du nag boo dee ku tedd ki dugal la àjjana ndax yaa ni murit nga jox ko sa bopp te mo ne lu kulli man bi ta'allaqa naja min kadri dunya wa fi yawmin naja waaye li ñuy wax mooy fii jamono ak li nu war waaw tuba dal moom képp koo xamante ni bi da nga fa yeewoo mbaa nga am fa kër saytoo ko na ko war a saytoo nga am fa quartier ñu la fa nga ko ko rek dëkk ba mel mu war mel waaw leneen la ca des nag dans na rek na nekk état waaw ñu organiser ko ni ñuy organiser état rek waaw nekk état état waxin la waxuñu comme état yii nii état yii état sénégalais état euh, ivoirien état malien yi déedéet waxuñu façon état yooyu mais dafa war nekk un état boo xam ne ci ki wàllu organisation ak programme ñun foofu la ñuy waxee waaw foofu la ñuy waxee waaye lépp bu ñu ko bàyyee xalifa bi rek ak xilaafa gi wax dëgg yàlla <laughs> waaw te ñoom spiritualité bi fiñ toll nii doy na leen sëkk waaw ci lijjanti buñ ci boolee nag bàyyi leen di leen lijjanti loo lépp itam day metti ci ñoom day metti ci xalifa bi wax dëgg yàlla metti faw ñu dugal ci yërmande rek bu dul dara itam ñu koy def ngir jëmmi ku tedd cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul kenn ku nekk loo am ci xam-xam ak ay pexe ci sa volonté ak sa détermination nga koy génne di ko joxe waaw sëñ bi moom du bañal kenn xalaat bu rafet waaw loo xamante ne bi luy defar dëkk beeg luy jubale nit ñi ak lu leen di jubal waaw wax dëgg yàlla du ko mës a bañ wasalaam